ñoo ngi ci waxtaan wi ak beneen Ibrahima mu di Ibrahima gasama moom taskatu xabaar la doo nit kuy xeltoo ko gëstoo ko saytu fi euh, crise ba ca Casamance Ibrahima gasama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la nuyu bu baax. jërëjëf bàyyi ma door rek Ibrahima Ama Diémé laaj bu njëkk bi moo di tolluwaayu processus de paix ba ca Casamance tey boo ko doon natt noo euh, loo koy jox lu muy doon. bon peut-être euh, commencé di sant yàlla ndax bu ñu seetee fu ñu jógee depuis 2012 ba tey.

comité ad hoc mhm. moo fas yéene waxtaan ak euh, ñi nekk ci MFDC te MFDC nag gis nañ ne dafa dafa dafa bëri ay kuréel fu mu toll euh, el armée bi am na ñu bëri ñoo xamante ne kenn ku nekk ay chef sa bopp nekk fi fi nga ne euh, ñaari branche ñaari banxaas la woon fu mu nekk nii ñu ngi ci ñeenti banxaas kenn benn bu nekk am na commandement am el politique bi itam am na donc loolu yëpp nekk na jafe-jafe yi war a tax que euh, waxtaan ci MFDC bu réunifié c'est du du yomb mais ñu yaakaar ne rek gouvernement bu demee ba. mais Ibrahima est-ce que loolu bu amul jàmm ju sax dëgg ca Casamance te dëgg jàmm dëggantaan jaay mën na fa bu fekkente ne waxtaan ak fi MFDC yamul. non si moo tey ma ne euh, il faut que ni gouvernement bi jël décision. pour mhm. que mën a discuter ak képp koo xam ne pare na pour discuter. ndax euh, ni ñu ko defee woon commencé nañu ak Salif Sadio ñu ngi waxtaan depuis Saint-Egidio parce que pas yëg ngeen ko. Mhm. ñeneen ñi ñu ngi taxaw taxaw tànk boo xamante ne itam ñoom itam bu ñu sañoon euh, ndaw nguur gi fekk leen ñu waxtaan donc foofu lañ ci toll moo tey ma yaakaar ne rek euh, bu duloon Covid bi sax. mais mais mais est-ce que loolu du compliqué parce que quelque part aussi seetlu nañu dafa mel ne ñoom sax jubbuwuñu seen biir de. Bon, lolo, lolo, ça fait partie. Ça fait partie de la difficulté. C'est parce que mhm. c'est difficile qu'il faut justement nous discuter. Nous savons que nous sommes doués. Et c'est lolo la roche. Vous faut contenir. Vous devez euh, mbasmi peut-être déjà euh, defoon nañu ay jéego yu gën a bëri pour que ñi war a ñu pare pour discuter mën a continuer discuter. très bien jërëjëf Ibrahima Ama Diémé maa ngi lay gërëm bu baax Ibrahima gasama non waaw laaj bu njëkk bi mooy processus de de la paix en Casamance muy jéego ko pexe yi nga xam ne ñu ngi koy nas ngir jàmm am ca Casamance tey su ma la laajoon loo ci gis lu muy doon mi ngi dox doxul dafa tàggat témbe wala dafa dellu gannaaw. waaw dellu gannaaw moom delluwul gannaaw ak dox bu ñu yaakaaroon ni dina ko daan doxee dafay sooxee maanaam daal euh, loolu la ñu gis doon xam ne teg teg kaaral bi nga xamante ni ñëpp ñu ngi ciy sant yàlla loolu nag euh, teewut euh, waxtaan bu nga xamante ni moom la askan bi yaakaaroon ni waroon na am

Euh, MFDC nekk benn am benn ndaje bi xamante ni moom mooy tax ñoom ñoomi neen ñu tànn ay nit wala kenn ki nga xamante ni moom dem jàkkaarloo ak gi loolu nag euh, moo xaw a tardeel fu ñu nekk ni euh, waxtaan yooyu wante nag ñun ci suñu gis-gis am na li nga xamante ni daal nguur gi moom la yeeyoo maanaam daal a joxe lenge maanaam bu moom dem waxtaan ak ñooñu am nay kuréel yi nga xamante ni jege nañu ñooñu ndax ñoom sax seen biir am nañu lu ñu taxawal lu ñu wooyee comité provisoire des ailes politiques et militaires am daal banxaas la bi nga xamante ni moo war a wax ci tuuru politique yi ak ñu yoree fetal yi ñoom euh, ñu ngi waxtaan seen biir am tuuti ñagas ñagas ñu ngi koy xool ñu koy saafara donc loolu daal def ci sotti ji loolu moo indi li nga xamante ni xëy na ab dal am na wante ya ñu amoon ni dina am waxtaan diggante nguur gi ak MFDC a amagul négociation amagul entente amagul te pourtant accalmé amna. Lui expliquer situation Bob. waaw Akalmi boobu dafa ne euh, MFDC gis nañ ni fanweeri at ko ku nekk euh, mënuloo dara sa morom loolu daal la ñu mën a wax maanaam daal euh, xeex nañu def nañu lépp mais lu ku nekk bëggoon gis nañu ci terrain bi amu ko mais ci wet ga askan wi bés bu yàlla sàkk bu yeewoo jàmm lay wax jàmm rek lay ñaan ah loolu nag ñaar daal di déglu li nga xamante ni loolu mooy aspiration population yi weer ngànnaay ne ah comme dañuy dégg bés bu nekk ngeen ñuy ñaan jàmm jàmm jàmm léegi dañuy lal fetal yi ñu dem toog waxtaan mais loolu buñ ko waxee amul jéego bu topp kenn rek moo ci xëy xëy na euh, am avancé ak nguur gi mais nguur gi aussi dellu atul vers les autres yi nga xamante ni ñoom it ñu ngi ñaan ñu ñu boole leen ci loolu daal euh, la la la laa gis ni Euh, jàmm lu nuróog jàmm la sax parce que akal mi moom du ndax dafa mel ni nga nekk ci biir néeg ngay fanaan ak pax pax baa ngi ci suufu lal bi xamoo ban waxtu leen xam nga loolu booy nelaw sax sa sa sa nelaw kon voilà loolu daal na ñu nekkee tey ji bu ñu sañoon borom fetal yi nekk ci biir àll bi nguur gi bu mënul dem directement jàkkaarloo ak nit am nay kuréel yi fi nekk ah na leen jox lenge yi jox leen sas nga xamante ni ñoom dinañu ci àll bi toog ñoom ndax français nee na on fait la paix avec celui qui fait la maanaam boo buggee mu dakk da ngay dem ci ki yoree fetal gi ndax tey MFDC ni mu bindoo waxuloo ak ñu yore ngànnaay yi njort naa ni dañuy wax rek mais ci ëllëg sa dinañu jëlaat fetal yi def naka sugul noonu te it euh, loolu daal la ñu nekkee wax naa ni faut que rupture am ci loolu mhm. nguur gi jël dossier bi teg ko ci table bi xool rupture yi ci war def comme ça ñu avancer génn ci li parce que fanweeri at ak juróom-ñett euh, yaa ngi ci du fitna du jàmm vraiment je pense que Casamance war na weesu loolu. jërëjëf Ibrahima Gassama maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci xalaat beeg ni nga ko joxe taskatu xabaar nga doon nit kuy observé crise bu Casamance gërëm Ibrahima Ama Diémé mi ubbi woon waxtaan mi ngi bokk ci groupe de réflexion pour la paix en Casamance gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Media. mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi ne woon Abdoulaye Diop ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Diène service digital Yacine Pouy jàngeen jëf ci kanam tuuti da ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw ci ak Futur Media mbokk yi yàlla na savon de Marseille 100% naturel.